mais da nga waxoon da ngay tudd rek simple. lu ay fort. Ifa création. ak maman xool. xale màgg na. Yo ibadu, yo ibadu ngodofe. Oui. Yo ibadu ngodofe.